leen nag jàmm mbokki internet yi Buzz Actu 221 ñu daal koy dooree ci lu ñeel nag li jëm parti bu ak élection présidentielle 2024 ñu dëgmal gannaaw bi nga xamante ni daal nañoo dissoudre bi le parti bu Pastef les patriotes ñu bari nag doon lam-laame ndax bi le dina wut li nga xamante ni mooy plan B wala déet bu ñu sukkandikoo ci journal bi Le Quotidien daal na si addu daal indi ay leeral di xamle ni kii di docteur 2024 ñu dégmal Pastef dina si am ab di présenté wu ni ci noonu nekk di daal di xam le ci la février lañ koy daal amal te nag kenn du ko daal repousser ci naka noonu nag moom mi mu ngay daal di nakkarlu waaye tamit di ñaawlu bu buntu xatal bi ñuy teg ci kaw waa Pastef waaye mu ngay daal sàkku rek ñu daal di ki nga xamante ni mooy leader bu Pastef di Ousmane Sonko ci naka noonu nag moom mi lee di docteur Diallo Diop daal nay àdduwaat ci ñi nga xamante ni nag ñoo fare ci diaspora bi mu ngay daal di xamle nag ñoom ñi lee jamono ji état bu Sénégal dafa daal bind ab liste boo xamante ni daal na ko yore ngir nag ñoom ñi lee bu ñëwee si màggal bi ñu daal a a ndax nag jamono ji kii di njiitu réew mi di Macky Sall suulul li nga xamante ni mooy projet bu Pastef ci anam yi nga xamante ni daal dina bi de parti tamit daal di jël ki ni moo nekk seen leader di koy tëj ràpp bi ak ñi militant yu Pastef yu bëri ñoo xamante ni jamono ji ñoo ngi ci kaso la commune bu Patte d'Oie moom mi leen nag gannaaw bi nga xamante ni daal nañ koy teg loxo moom mi leen nag mu daal yore ab feebar boo xam xamante ni jamono ci daal na koy sonal lool ba tax nag ñu daal di jot benn xibaar bu ñu sukkandikoo nag ci la di Maimouna Dieye jamono ji danañ koy évacuer ca hôpital Fann bu Dakar mu war a subir ab opération benn intervention chirurgicale la moom mi la nag nekk membre bu Pastef gannaaw bi nga xamante ni dañ nay passé ay fan ca pavillon spécial ci anam yi nga xamante ni daal di woon nañ ko inculpé ci ñu daal di woon ko placé su mandat de dépôt ñu daal di woon ko toppee nag lu ñeel association de malfaiteurs en relation avec une entreprise entreprise terroriste organisation d'un mouvement insurrectionnel acte ou manœuvre de nature à compromettre à la sécurité publique ou à causer des troubles politiques graves provocation directe d'un attroupement armé di ay charges yoo xamante ni moom la ñu tekk ci ndoddum moom mi di Maymouna Dieye nekk maire de la commune bu Patte d'Oie waaye tamit bokk ci membre yu Pastef moom mi nag bu ñu sukkandikoo ci réew mi la au quotidien dañ nañ koy évacuer ci hôpital Fann bu Ndakaaru ci jafe-jafe yi nga xamante ni ñi di waa Pastef ñu koy daal di dund kii di ni mooy Cheikh Bara Ndiaye nga xamante ni nag dañ leen a daal di inculpé woon ñu daal di leen a yóbbu ca kaso yi ñu leen di toppee li nga xamante ni mooy outrage à magistrat diffamation et acte de nature à compromettre la paix publique ci avril bi weesu nag ci naka noonu nag kii di Bassirou Diomaye fay ak ki nga xamante ni ak Cheikh Bara Ndiaye ku ñu benn yoon di déposé di sàkku li nga xamante ni mooy liberté pro waaye nag dañ leen ko ko daal di bu ñu sukkandikoo nag ci journal bi de Les Échos mu ngay daal di xamle ni ñoom ñi lee jamono ji danañoo déposé beneen demande bu bees boo xamante ni kii di seen avocat di maître Moussa moo ko daal yóbbu daal ko yóbbu waaye nag moom mi de jamono ji mu daal yaakaar nag bi yoon dinañ leen daal di li nga xamante ni mooy liberté provisoire milé ba tey nag journal bi de Les mu ngay daal xamle ni kii di magistrat d'instructeur dafa bëgg xamante ni mooy Cheikh Bara Ndiaye waaye nag yi la avocat dañoo daal di préféré nag ñu daal di def beneen demande ngir nag ñuy sàkku li nga xamante ni mooy liberté provisoire ci ki nga xamante ni mooy Cheikh Bara Ndiaye ak kii di Bassirou Diomaye Faye ci mbirum Cheikh Bara Ndiaye kii di magistrat d'instructeur bi nag opposé wutoon ak demande bi nga xamante ni kii di Cheikh Bara Ndiaye daal di woon na ko def waaye nag ñii di waa chambre d'accusation ñoo daal di lànk nag gannaaw nag ab recours de parquet boo xamante ni daal di woon nañ ko ko def xibaar bu yees nag

xamante ni dañ na si am ñii di waa groupe Buzz Actu 221 dinañ leen a toppandi abile xabaar